commerçant yu marché Ocass moom li nu wax leer na nañ ñi ne moom ëllëg ak jàmm dana dellu ci marché ba rawati ñi nga xam ne ñoom ñooy jaay lekk ne ñoo ñooñee la nu may autorisation nu dooraat liggéey bi ñoom nag li leen jaaxal mooy kilifa yi dañ leen waxoon ne ñetti fan yi danañ bale marché Ocass daal di koy moo ci gaaw gi képp lañu leen gis nu ñëw di bale te te jàpp nañu ne bale googee du yegg ñun lañ ñu waxoon daal def nañ ko marché bi daal nit kenn benn commerçant nekkatu fi ñëpp génn nañ mu des nag mbale mi nag mbale mi nag moom autorité yi ñoo ne woon euh, pour question de sécurité jërul benn commerçant di fi nekk mbaab daayira ñoom ñoo ko ñoo ko waxoon ne dañ ko gérer seen bopp. xam naa nag ci suba ba tey maa ngi fi wax dëgg yàlla waaye nag xëy na des na daal ndax ndax ni ma jàppoon ne tey jii jàppoon naa ne tey mbale mi war naa mën a jeex tey bu subaa euh, bu guddee waa service d'hygiène pomp ko waaye nag loolu mel na ne dana ay tardement. waaye nag it euh, fexe ba nit ñi tamit am luñ bu ñu bu ñu yoree ku yorub xaalis it mën a dem ca euh, feet feet foo xam ne fa nga mën a jëndee dara loo lekk yëg su njaboot waaye nag biir koor gi tamit nit ñi di war a togg ndogoog yu demee noonu te amuñu dara luñ jëndit wax dëgg yàlla dana metti lii nga xam ne Seny Dieng di délégué bu marché bi wax na ko yeneen i naataangoom daa doon koy dëggal. comme ñoom li ñu waxoon waroon ko tàmbali ci beneen fan ba ñaari fan ba ñetti fan ba tey ñu doog a ñëw tàmbali mbale mi te dafa naa ko def eh, eh, pompe ko fi desinfecté ko fi ba ba ji dee attardement bi moom ci ci kilifa yi nga xamante ni ñoom ñoo ah, ñoo jëloon ñoo joxe ndigal kon maa ngi bàyyi ci ñoom lay jógee ba tax na daal ñun li ñu leen di woo mooy li nga xam ne ñu sëriñ sant santoon ñu tëj ñetti fan yoo xam ne bu fa kenn jaar ngir ñu mën a def seen i ñu matale ko comme defuñu seen i liggéey matale ko te ñi kat waxoon ñi nga xam dañuy jaay lu ñu lekk te sëriñ bi waxoon kat ñi jaay li lekk ala kulli ni mbooloo ñu ko te xam ñi nga xam ne dañ la waxoon ne dañuy ñu lekk bu subaa incha ñëpp nañ xëy dugg si marché xam ne moom la ñu sëriñ bi santoon te def nañ ko mairie moom moo moom moo eh, moo féetoo woon wàllu mbale mi ñoom ñaar ñëpp bu la service d'hygiène moom mënuñu ko wax dara ndax wax dëgg yàlla moom li mu xaar moo ñu bale ba pare ndax woo nañ ko léegi nii mu ni suñ balee ba pare dina ñëw xool ko su baaxee mu pompe bu baaxul la du ko pompe kon moom moom mi ngi xaar amugul leen amul amugul responsable mais responsable dëgg dëgg dëgg mooy commune bi muy maire moom ca réunion ba la ñëwoon moo war a indi élément am te wax dëgg yàlla ba léegi nii li fi nekk di mun a kon traitement bépp mom lañ ko mëna mom lañ ko mëna wax wa nit de li ba japp moy bo xiilifee nga sant ko mu def la la war mooy nga def nga def la la war comme ñum sat nañu def nan ñom ñu war def li leen wara def moy bu dé insécurité bi bi ñu war bi ñu wax ni ñun premier jour ba ñu wax dañ ni nan carrément bëcc gi dafa xawa yag ta comme nit ñi ñu ngi seen kër il faut ñoom sécurité bu doy sëkk ci la ko wowe deuxième jour yi mu ne ko kon nañ mu wutal ay barrière bi ñu waxe barrière ñu dem wuti 25 barrière luyee auto ñun ñoo luyee sun auto ñun Aziz tegal leen nga mbedd par mbedd ñu fermer mbedd yëpp ba mu pare. ndax dañoo waxoon dañuy tëj ñetti fan pour ñiy jaay euh, pâtes alimentaires yi. Euh, ñiy jaaykati tissu yi ñu tëj leen 7 jours pour ñu bale marché bi mais dañoo xool gis nañ ni 2 jours yu njëkk yi kenn balewut xëy si nañ ñëw xool marché bi mais gis ñu kenn ko bale. troisième jour bi nag gis nañ fi lu tolloo 14 personnes ñi ngi bale mais xam nga 14 personnes lu toll ni marché Ocass 14 personnes mënuñu koo bale. Euh, li ci topp mu ngi xam ne ñiy jaay ndugg na sama mbokk jigéen yoo xam ne wax dëgg fa yàlla sonn nañ da ngay gis ko ŋàbb si yoom dem marché xool doo gis loo jënd nga wëreelu ba sonn ñibbi da ngay obligé mujj di togg ay sombi am na tamit ñoo xam ne jigéen ñu bari ñoo xam ne dañuy ñëw ci marché bu bu ñëwee dañuy liggéey ba 11 ñu ñu li ñuy liggéey ci li ñuy jaay da ngay gis koo xam ne day yebal benn xale ni ko bu 11 nga ñëw jël si ndugg mi yooyu yëpp daf fi am ñu xam ne kon euh, tëj biñ tëj marché bi laaj na laal laal na jigéen ñu bari te it euh, laal na góor ñu bari tamit mais naa jigéen ñi ñoo ci gën a sonn parce que xam nga tubaa daanaka néew ji doole yi dañ fi xaw a bari il faut loolu tamit ñu di ko bàyyi xel ndax euh, jigéen bi nga xam ne day xëy dem marché waas jër wala mu suqi ginaar su paree ndugg dem toog boo ko tëjloo ñetti fan kooku war nga xalaat lu muy dundee ñuy ñaan nag comme que tëj nañ ñetti fan ñi nga xam ne ñooy jaay lekk moom ñu bàyyi leen ubbi te buñ tëjloo nit ñi tamit 7 jours 7 jours yi bu jeexee ñu bàyyi ñu dellu suñu liggéey te lépp looy def tamit il faut nga sóoraale ci nit ñi bu baax a baax. suba la quatrième jour euh, quatrième jour bi ci boppam lañ bëgg bu ubbee na alimentation yi ubbi ak ñi nga xam ne ñoo jaay wàllu lekk parce que ci koor lañ nekk te itam euh, ci suñuy kër lañ ume te daa ume ci marché bi daa jël li ñuy jëfandikoo ci marché bi di ko yóbbu ci suñuy kër léegi loolu loolu lépp amatul parce que ni ñoo wéyal suñu liggéey ci ñeenteelu fen bi mais boo xoolee euh, kilifa jiite la da laa war a jox exemple boo xam ne nii toujours da nga ciy teg sa loxo boo jiitee aw aw nit itam da xool ña gën a néew doole am na ñoo xam ne bu ñu añee duñ buñ reere duñ ndékki am ñoo xam ne nii fii dañuy ñëw ànd ak seen i soxna euh, euh, lijjanti dépasse jox leen ñu soog a dem am na ñoo xam ne nii dañuy jël seen i mbuus dem dugg ci marché bi lijjanti ab euh, ndugg soog a seeni soxna ñu taal ko ñooñu buñ leen du sóoraale dara du sotti. du jóob Diaobé taxawee fa taxawaayu superviseur di wax ne marché bi kay dana dooraat ëllëg ak jàmm te it danañ ci ànd ak kilifa yi ba ñi nga xam ne ñoo jaay lekk danañ taxaw jaay seenum jaay te du am benn raj raj loo tey ni mu jëlee woon dogal wax ni nañu tëj marché yi ci Touba yëpp yàlla dogal ñu war koo ñu war koo pompe war koo bale bi ñu xëyee ñenn ci ICC ñëw nañ njëkk fi ñëw parce que li ñu waroon a bale am na ci lu des waaye matuwaay yi ñu war a jël mooy ginnaaw dañu jël préfet dafa jël ndigal pour ci ndigalul sëriñ bi pour ñiy jaay lekk ak ñiy jaay lu jëm ci koor gi ak ñuy jaay lu aw ñam ñu wutal leen foo xam ne danañ fa mën di jaay nit ñi population bi ngir ñu mën di dugg lu mel ne ay carotte naweek lu jëm ci yàpp ak soow ak yeneen ak yeneen yooyu nga xam dañ koy soxla suukar ak tendrement yu noonu mu wutal leen fu mel nii yàlla dogal na bi ñu ñëwee fekk président Assis ñoom ginde nañ ci seen xaalis jënd trois camions suuf nii ngir ñu tasaare ko ICC pour fu nit ñi nekk loolu moom la ñuy superviser nii waaye nag du ci marché Ocass kepp marché yëpp yi nga xam ne jëloon dogalu tëj ko marché yooyu yëpp tam lay mayaat ni bu trois jours yi ñu mën a jaay seen i lujum waaye duñ ko jaay ci biir marché bi maanaam nekk ci ruq-ruqaan yi jaay ko ndax mbooloo mi mën a yaf marché bi mën a nooyi microbe bi dee nit ñi tam war a mën a bañ a jege bañ xeex li nga xam ne mooy doomu jàngoro bi. préfet matuwaay yi mu war a jël lépp ànd ko ak sous préfet ànd ko ak commissaire divisionnaire. Euh, commissaire Sarr ànd ko ak commissaire Thioban ñoom ñëpp disposition yi ñu war a jël jël nañ ko mooy fu ñu yóbbu mbooloo mi commissaire dana fa yabal ay éléments ñu ñu nekk di leen surveiller di leen encadrer di leen dimbali di leen xool waaye ànd ak waa président Assis ànd ak Sini Dieng délégué bi mais ànd encore ak waa ICC ànd ak encore ki nga xam ne mooy capitaine Kayta bu service d'hygiène feebaru coronavirus taxoon kilifa yi wax ne kon dañuy jël dogal tëj marché Ocass ak bépp marché bu nekk ci biir Touba ñetti fanu yàlla kenn du fa dem ñetti fan yooyu bu weesoo nu bàyyi ñiy jaay wàllum lekk daal di fay teew di xool léegi ma ayu bis bi dana suppiku bu suppikoo ñëpp dellu bu suppikuwul nu jël yeneen i dogal.